serigne Modou Moustapha mi nga xam dañuy bëgg di lim limu def ci yoon wi. waye mané suko lim li mu def ci yoon wi. kenn mënu ko lim mëneesu suko dañ ci tuddu ay yef rek. waye kenn mënu lim li fi sëñ Modou. waaye lim li fi sëñ Modou Moustapha def. juma ji ci Touba rek. juma ji ci Touba rek. nga xam bimu bi mu koy bi def fondation bi. nga xam ne def fondation bi. booba Touba motul téeméeri kër. téeméeri kër. te kër ya fa di ay néegi ñax. nga def fi fondation bu tol nii. kooko day ku ne xam na ne. xam na lu ñëwagul. ba fii nu toll. lu Touba mën a rëy. jumaa ji mat ko jumaa. lu fi mën a yokk jumaa ji mat ko jumaa. loolu. loolu rek. loolu mu su ta wax dayo bi. soxna si nag. soxna si nag naka jekk. nii mu mel. nii mu mel. yàllaa ko def. cër bi nga xam ne moom la am. cër bi nga xam ne moom la soxna si am. yàllaa ko def. melaw wi nga xam ne moom la melawoo. yàllaa ko ko defal. ca njaareem. ba ci Touba. lu baax lu ne. cër bu ne. am na ko fi. ñu ñaan mu yàgg fi bu baax te mu ànd ak wér bu baax a baax a baax a baax am nañ ci moom yaakaar di sàkk ci moom ñaan itam ci bis bii xam nañ ne luñ fi ñaan lum fi ñaan moom mii yàlla dana ko def xam nañ loolu bu baax kon nag soxna sëriñ bi ne nga ñaanal nu bu baax <laughs> <laughs> waaw <laughs> soxna nee na la ñaan gi tey <laughs> waaw sëriñ bi nee na ndigal la nee na sëñ Abdou Aziz Siñoor dañoo daje Cees Nena dañu dajé daje Thiès ci immigration station Demba kawi yi Thiès nee benn photo bu gudd lañ fa tek lool ñu jublu ci bu ñëwé mom mi mok sëñ Abdou assis Senior ñu tok ci bi sëñ Abdou assis Al Ibnu ñëwé nak sëriñ bi ne nanguuma ci tok ma wax wax mu ne togal rek ma insisté mu ne ma toogal ndigal la yéen murit xame nañ leen ndigal kon kon nag lii ma soxna si def la muy ñaanal mbooloo ndigal la ndigal la danaa ko def na kon na ñëpp tàllal na ñëpp tàllal fas liñ bëgg teex amin